borom tubaa nee na dee leen fonk ak mbokk ndax alalu yàlla la te kenn bëggul ku sàggane sa alal